xam ngeen ne ñu ngi séentu bis bu màgg bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne ci la ñuy santale Cheikhul Khadim boroomam ci liggéey bu rëy boobu nga xam ne moom la defi woon te ñaan képp koo xam ne mbégam sa mbég la nga santale ko mm, boroomam daayira Muxaddamatul Xidma nag ak ay waajtaayam xam ngeen ne bu safar xasee teru dañuy daal di ñëw nag ci jumaa ji féete fi nag complètement guddeeg bëccëg nag fi ne nag ñu toll ci waajtaayu màggal gi ci wàllu yeesal yeeg euh, nettoyer yeeg euh, repare yi fi yàqoog saytu jumaa ji ba waajal ko waajtaay woo xam ne mboole mbokki tali bi ñëw ci màggal gi fas yéene ziar si danañ mën a ñëw ci jumaa ji ak seen tey bakkan fekk itam mu méngoo ak ni jumaa war a mel méngoog ni ko borom bëgge suñu jotaayu tey nag ñi ngi toog ak kenn ci kilifa kilifay daayira Muxaddamatul Xidma ñu koy wax sëriñ bu sa Bousso Thierno fas yéene waxtaane nag nan la ñuy waajale nag màggal gi ci jumaa ji rawatina mbokki taalibe yi nekk ci biti ak euh, war a ñëw ci màggal gi war a agsi ci jumaay Touba def seeni julli wala def seeni ziyaar ban comportement nag la ñu war a am ci biir jumaa jeeg li ko wër waaye itam yi nga xam ne des na ko moytu bu baax a baax te sëriñ bi di ci soññee saa su nekk ngir ñu bàyyi ko xel ngir sellaayu barab bi ak warma ji ñu war a jox sëriñ bi kon damay jox ab Abdou bu so mu nuyoo rek bu ko defee ñu sóobu ci waxtaan wi sëñ Abdou Lahad asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Ablaye ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi di leen nuyoo ci barab bu tedd bi di jumaay Tuuba di leen ndokkeel ci weeru safar wi di ndokkeel mboolem jullit yépp ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak barab bu tedd bi nga xam ne moom la ñu nekk. Euh, daayira Muxaddamatul Xidma taxawaay bi muy am ci jumaa ji ak pénc mi yi nga xamante ni dañuy bëgg ñi ñëw ci jumaa ji di màggal si di ko moytandiku yooyu laa bëggoon nga tënk ko bu ko defee mbokki tali bi màggal si mën koo xam ngir mën koo bàyyi xel loolu nag bokk na ca tere yi nga xam ne sëriñ bi doon na ko tere ci jumaa ji ak li ko wër bu ci njëkk mooy jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi loolu laa bëggoon nga ñëw ci sëriñ Abdou Lahad euh, jërëjëf sëriñ Ablaye euh, barab bii nga xam ne mooy fii ñu toog di jumaa ji ak xurum ji ak mboolem Touba sax euh, dafa doon barab boo xam ne barab bu tedd la boo xam ne dafa bokk ci barab yi nga xam ne euh, dañ koo wormaal te sunu borom moo ko jagleel Serigne mu muy barab yi nga xam ne barab yi gënal yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ndax li tax ma koy wax mooy dégg naa ci sama euh, maam Serigne Modou Khari Fagnang mu ne Serigne Touba moo ko nettali mu ne tuubaa li tax amul sago ci man te man awuma sago ci moom. mooy sunu borom dañoo dajale ci góor yàlla yi da ñëpp bëgg Touba sunu borom ne Touba tànnal Touba tànn mu man Serigne Touba moo tax awma sago ci Touba Touba amul sago ci man fii nag di pénc mi ak jumaa ji mooy fi nga xam ne mooy xolub Touba suñ koy wax euh, mboolem dëkk bi tamit bëri na barab yoo xam ne sëriñ bi jaar na fa ak tànkam euh, euh, julli fa wala mu dugg fa xalwa kon fu mën a nekk ci dëkk bi war nañ ko wormaal rawatina nag fii ci Touba lu tax mooy wax nga ko léegi. lu mat euh, ñetti million wala ñaari million ak genn wàll di ñëw ci dëkk bu tedd bii te kat taalibe bu nekk li lay gënal mooy soo tegee sab saak ca fa nga jëm la ngay njëkk a yittewoo rek mooy jóg ngir ñëw fii siyaare sëriñ bi loolu nag euh, wala nga ñëw julli ci jumaam ju tedd ji wala nga ñëw ci pénc mi euh, jàng alquran wala déglu xasida loolu nag li tax nga ci mën a jariñu dëgg dëgg dëgg li la koy mën a may mooy worma kon jaadu na ñu fàttali sunu bopp fàttali bokk jullit yi ak bokk taalibe yi ñu seetaan ñu gën a bàyyi xel barab bi nga xam ne fi la ñu nekk euh, ci ma loolu nag euh, li nga xam ne moom lañu fiy bañ li sëriñ bi li muy bañ mooy li lislaam di bañ rek muy képp ku fi ñëw daal na nga indi xol bu sell xol bu laab yor ndab lu sell ngir fos yéenee taatam loolu nag soo ko indee da nga mën a jariñu danga nga ña ngay fekkiwaat da nga jariñ sa bopp jariñ say doom jariñ say sët yi nga xam ne ñoo lay wutu li koy maye mooy li ci jiitu mooy nga fas yéene fas yéene ñëw ngir jariñu ci xol bu sell loolu nag soo ko dee def da ngay moytu yi ñu tere yépp ndax ku sàmmoonte yaakaar naa damay jëlale ñëw fii di fi def lu neexul yàlla ci dëkk bi wala euh, lu lu naqari sunu borom tabaraka wa taala waaye nag nga dolli worma ji bu wér ci sa jëmm yow ci sa bopp nga tàmbalee ci col gi ngay sol sooy ñëw ci barab bi moo xam góor la wala jigéen bu dee jigéen na muur ay cëram bam daj bu dee góor na sol col góor ba ñu génnee lu tàmbalee ci ay wóomam ba ci suuf wala muy eh, sol col goo xam ne lislaam daganalu ko ci moom wala muy sol col koy jigéen wala góor di sol eh, col koy eh, jigéen wala jigéen di sol col koy góor moo xam jigéen dafa sol loo xam ne sax dañ koy màndargaale ay bàyyi laxaat wala ay bàyyi soin bu yooyu yëpp bu ñu la gisee di la teg góor loolu tamit bokkut ci ni ñu war ndax da ngay jaxasoo nekk ci biir góor ñu jàpp ne góor nga fekk jigéen bi bokk na ci coow lu bëri li ci biir jumaa ji ndax ñu xam ne fii jumaa la te jumaa dafa aaje wormal buñ dee dugg ci biir rang di jaar ci biir jumaa ji di wuti barabu sëriñ bi nañuy moytandiku coow li ak kaddu yi ñuy mën a wax nañ koy moytandiku bu baax a baax. ku mën di wax jërëjëfi sëriñ Touba nga fas ko ci sa xol te xam warmaal sëriñ bi te xam ne ci nga jëm jërul ñuy wax jërëjëfi sëriñ Touba wala ñuy daw jëm ci sëriñ bi. jërëjëf sëriñ sëriñ lay day méthode boo xam ne taalibe yi dañ koo tàmm lool te jàpp nañ ne buñ koy wax ca kaw dafa am tiyaaba jum leen di jural te sëriñ bi soo ko sàbbaalee wala nga wala nga wax ay wax joo xam ne ci moom la jëm ak noo ko mën a waxee dana xam ne ci moom la jëm ñaan goo ko ñaanal dana ci jot kàddu yoo wax dana ci jot li am solo moom mooy xol lay gis moom sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax ne deesuma jege ci jege ki ki ma gën a sori te nekk ci li gënal yàlla ak li ma gënal yaay ki ma gën a jege ki ma gën a jege te nekk ci li gënalul yàlla ak li ma gënal yaay ki ma gën a sori kon soo ñëwee ba ci moom ba jege ko kon war naa tax nga bàyyi xel war ma euh, teewlu ngir booy dugg ci barab bi nga ànd akuk dal dem bañ a nekk di yëkkati di wadd wadd di laal buntu yeeg euh, euh, jàpp ne boo ko laalul day mel ni duggoo ci barab yow yaa ngi jëm ci sëriñ bi looy doyee ay dénk wala looy wadd di laal yi bunt aggal ba ci suuf nga euh, teewlu jàng say xulhuwa ñaan ñaan sa soxla ñaanal ñi nga xam ne ñoo la yóbbante ay ñaan yëpp loolu mooy warma ji ci njëkk beneen bi ci des mooy moytu liñ fiy liñ fiy liñ fiy tere nga bañ fi luubal bañ a def lu ñuy tere muy bul jël yëfi jàmbur bul wax euh, euh, wax wax ju wax ju jubut wala ngay wax wax joo xam ne ju juunu la li ñuy aaye ci penc miin nga moytu ko ndax pénc mi daayira bi dañ koo sàmmloo wor ma ji muy képp lépp bépp njaay buñ fi bu ñuy war a jaay rek dañ ko fi aaye ci penc mi ak li ko wër moo xam ba ci jaay ay téere sax jaay mu mën a doon dañ ko fi aaye dañuy aaye ku fi géew di wax wax joo xam ne dëpp wut ak xam-xam ngir wax lu dugg ci sa poos dañ ko fi aaye dañuy aaye ku fi nekk di wecciku euh, bu ñu la joxee téeméer nga jël ci fukk wala bu ñu la joxee junni nga jël ci téeméer te loo xam ne force nga koy def te loolu dafa araam sax euh, ndax da da koy wecc rek su la mënee jox ngir yàlla mu jox la waaye il faut dama ciy dagg dara loolu dafay araam dañ ko fi aaye dañ fi aaye tamit euh, jaay ay njaay yu baaxul dama ne lépp mépp njaay waaye njaay yi dafa rawati mooy njaay lu mel ne sunguf yeeg béjjën yeeg ay béjjën ak ay waaw ah, ah. xam ne ay xarafu yooyu itam bu dara koy tere ci rawatina ci dafa dëppawut ak barab bi sax dafa dëppawut ak barab bi dëppawut ak dëkk bi loolu lépp dañ ko fi aaye dañu bëgg tamit ñu oto yi nga xam ne ñooy sëf sobee rawatina ñi dëkkul ci dëkk bi muy oto yi vidas yi dañ koy dañu leen di aaye ñu romb biir penc mi ndax mën nañ fee waddal loo xam ne sobe la te penc mi fépp jàkka la dëkk bi sax fépp jama jàkka la waccal buyoot yi kullaha masaajid daal la sëriñ bi wax kon ñooñu it dañuy aaye ñu jaar ci biir penc mi dañ fi aaye sareet jaar fi camion yu mag yi sax muy muy camion yi sëf bagage yu mag yi gros porteurs yi sagam ay nit ñu bëri dañ fiy daje su maggal gi jubee te ak seegut nañ koy moytu di teggi di jaar ci yeneen barab euh, ngir wormaal barab bi ak lépp loo xam ne daal nit ki su fi jaaree. Euh, dana dana soxlaal nit ki dañ koy ay yalwaan nag rawatina ci biir jumaa ji ak bitti jumaa ji am na fu leen dayre bi di dimbalee ngir jéggi leen télé bi yamloo leen fa dana am ñu leen di orienté ñu ñu ñu nekk fa. li ñuy wax lépp nag ginnaaw bi ñu leen ko waxee ñu dégg ko ñu bàyyi xel ne am na ñu fi nekk di ko sàmm ngir jëflante ak ñoom ci képp koo xam ne. ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi digle lislaam di ko bañ euh, taxaw nga tam ci bëgg koo def ñooña danañ la danañ la gàllankoor jërëjëf sëñ Abdoulaye la waaye itam am na loo xamante ni lu am solo mhm. maanaam ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci jumaa ji di ziar si nañuy sàmmoon teg ceeb gi ndax gis nañ ne daayira Muxaddamatul Xidma saa yu màggal gi weesoo mhm. dañuy sonn lool ci setal jumaa jeeg li ko wër mhm. ay mbuus yi ñuy naan di ko fi sànni gi yëpp te yàlla dogal na ñoom prévoir nañ ay poubelles yu fi nekk set googu itam jar na insister bu baax waaw wax nga lu am solo ndax lislaam dafa mel ne euh, li jiitu ci moom mooy mooy set ndax sooy dugg di def bépp jaamu booy jaamu rek sunu borom da lay digal nga laab te laab googu ci set la ndox lañ koy defee rawatina nag nga ñëw ci barab boo xam ne euh, dañ la dañ la exiger euh, taxaaratul adas ak taxaaratul xabas nga fekk barab buñ laabal ba mu set nettoyé ko ba mu set nga ñëw indi fi say ñam moo xam kafe moo xam ndox moo xam ay jus moo xam ay ñam jëfandikoo ko fa xam nga màggal dafa ànd ak bernde ndax nit ñi dañuy ñëw ci penc mi di togg di séddale kon nit kiy jëfandiku ak ki fiy indi war nañoo boole war nañ cee boole lu buñ noppee ñu setal barab bi ba mu set rawatina ñi nga xam ne ay néew doole lañ euh, da ngay gis ne léeg-léeg su màggal jàllee da gis ne sax da ngay ay mbuus wala ay bino yoo xam ne da nga ay sobe dañ ci gis ay sobe ñoo xam ne dañ koy def ci barab ndax jumaa ji dafa sore ay ay ay wanag sudurukaay dafa xaw a dafa itam ñii ñëw war nañ koo bàyyi xel ba ñuy waaj bi bi suñ borom subhanahu wa taala di wax naan yaa ayyuha alladina amanu xusu zinatakum inda kulli masjidin mhm. mooy na ngeen waaj bala ngeen a dem jàkk yi waajtaayu jàkk yëpp laaj waaw loolu loolu moo tax ñoom dama ne barab bi ku fiy ñëw soo demee sa kër teg sa saak na nga waaj bu baax ngir xëy na man ngaa nekk ci rang bu gudd wala nga toog lu yàgg ngir mën a àgg fi nga jëm kon jaadu na nga waajal sa bopp ba nga xam ne lépp luy génn ci yow ci wàllu sobe du fi du fi rot rawatina néew ji doole yi nga xam ne dañuy nekk ci penc bi wala jaaykat yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd yi dangay ngay gis ne su magal gi jàllee dangay gis ab jaaykat boo xam ne daanaka day créer saaru wan ak ci ci ca fam nekk ah loolu lu ko gën a doy war amul nga ñëw ne dangay ngay sàkku si tiyaaba mhm. di sàkku si lu baax ba amee ci loo xam ne jaaduwut loolu mat naa bàyyi xel mat naa sóoraale jërëjëf sëñ Blaat xam naa ne xëy na waxtu wi sax li ñu desee bariwut mhm. waaye am na tomb boo xam ne fokk ma laal mhm. mooy suñu mbokki journaliste yi nga xam dañuy ñëw mhm. nañ xam ne waajal nañ fii ci jumaa ji mhm. équipe boo xamante ni ñoo fi nekk mhm. waa communication ñi ngi fi euh, ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy jaar ci ñoom ñu ànd ak ñoom liggéey bi ndax ñun lu tasaare rek liggéey bi li ñuy bañ mooy koo xam ne day jaar fee di filmer yëfi boppam wala muy interviewé koo xam ne xëy na la muy wax xamu ko loolu tam nañ ko moytu ak rawatina ñi nga xam ne dañuy yor seen i appareil téléphonique di def ay vidéo wala yu mel noonu di ci wax loolu itam méngoowut ak barab bi wares na koo moytu bu baax a baax waaw dafa mel ne jamono ji moom euh, sëñ Ablaye wàllu googu ci lay tàmbalee bala ma agsi ci journaliste muy wàllu réseaux sociaux yi mm-hmm. dafa dafa bëri loo xam ne da ngay gis na gis naa ko sax ba Makka mm-hmm. nekk di wër Kaaba ga di def ponk boo xam ne bu yàqoo mm-hmm. sax aj du baax nga nekk fa di snap wala ngay nekk di di film sa bopp ba ba teewluwoo sa digg ak sa borom loolu kon soo dee soo ñëwee fii ci barab bi nga xam ne da nga jëm ci sëriñ bi nañ moytu di ànd di fotow rawatina góor ak jigéen loolu dañ koy dañ koy dañ koy aaye wala ngay film ay jaxasoo wala ngay nekk di jël sa bopp te war a teewlu wala war a ñaan loolu appareil mi ngi sànq nit ñi ba sax teewlatuñ seen digg ak seen borom loolu nañ ko moytu bu baax a baax bokkut ay teggin euh, ci wàllu diine rawatina barab yu mel nii sunu mbokk journaliste yi tamit dama yaakaar ne taskatu xibaar bu nekk lu wóor nga bëgg ak lu jóge fa mu war a jóge Euh, yàlla dogal na rem daayira Muxaddamatul Xidma am na commission culturelle boo xam ne waajal nañu ay boroomi xam-xam ci langue boo bëgg nag mhm. soo ñëwee moo xam historique jumaa ji nga bëgg moo xam sax da nga bëgg laaj yeneen domaine ci histoire sëñ bi wala dara wala ci lu aju ci jumaa ji ak li ko ëmb lépp am na exposition bu nekk fii boo xam ne tànn nañ ay boroomi xam-xam ñu fay def ay panel mu am ay brochure yu fa nekk yoo xam ne dafay euh, euh, histoire jumaa ji da ciy nekk ci langue yi soo demee boo ko demandé ak loo bëgg xam man ngaa tàllal micro kenn ak langue boo ko bëggee euh, ñu wax la ko kon li ñu bañ rek mooy nga dem di defal sa bopp kon jaaral ci bureau bi ñu boole la ak nit mhm. ñu wan la fi nga bëgg a jël nga jël ko ñu boole la ak koo xam ne mhm. dana la wax li nga bëgg xam nga xam ko xam yin loor woo xam ne mhm. du aju ci ak làmbatu du aju ci ci ak defe naa wala ak foog naa jërëjëf sëñ Abdou Lahad xam naa waxtu yi moo xat waaye waxtaan wi am na solo te mënoon nañoo aborder yeneen question ndax itam lii dafa yitteel ñi nit ñi ndax ñii ñëw di màggal si dañoo bëgg seenu màggal baax sëriñ bi nangul leen ko santale gi ñuy santale ko santale ko boromam loolu mu nangul leen ko kon lii jàpp naa ne mbokk yi koy seetaan danañ ko déglu bu baax teewlu ko ñu bàyyi xel ne itam màggal gi incha allah euh, alxamis lay doon waaye bët seet di ajjuma jumaa ji war a recevoir itam mbooloo mu baree bari ci jullit ajjuma googu nga xam ne talibe yi dañ cee war a barkeelu ñu bàyyi ko xel moom itam jox ko itam ittee waaye itam jox ko itam ab yar bu ma sëkk boo xam ne xëy na mbooloo mi dana bari waa dëkk bi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi nañu yaatal gan yi bis boobu te may leen na ñoom ñu barkeelu ci julli gi bu ñu demee ñoom itam ñu des ñoom ak seen jumaa kon dama jox la kàddu yi rek nga tàggoo ñu ñu ñu ñu tàggoo. jërëjëf sëriñ Ablaye li nga wax am na solo c'est que magal gi dafa sësoog ajjuma te ñëpp dañuy bëgg a ànd ci julli ajjuma gi eh, ñu gën a bàyyi xel bis boobu ngir gën cee mën a jariñu am na phénomène yu ñu yu ñuy xewal yoo xam ne tey bu ñu jullee ba noppi daanaka dañuy riir wuti miin ba nekk fa di yëkkati seen kàddu ci kaw wala ñuy dal ci kaw sëriñ bi loolu dëppawut ak teggini murit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax li ñuy tëjee suñ kàddu daal mooy képp ku bëgg jariñu yaa ngi ñëw ci barab boo xam ne raxas nga sa ndab mhm. ba mu set nga bëgg a ñëw ñu duyal la bul fexe ba benn fépp suuf dugg ci ndab li mhm. bay xajamal li nga xam ne moom ngay moom ngay moom ngay duy euh, fexe fexeel yow ba nga ñëw jariñu bu baax a baax a baax yóbbaale ak yiw woo xam ne dara du ko xajamal loolu nag mooy nga ñëwee fi ak sell moytu liñ fiy tere euh, jëfe ndigal euh, sëriñ tubaab faj sa ajo faj ajo yi ñi la ñaan ñaanloo ñëpp bi barakati xaadim rasul jërëjëf sëriñ Ablaye asalaamaaleykum wa Euh, jërëjëf ab laxat Lahad Bousso Thierno moom lañ àndaloon ci jataay bi comme ni mu ko waxee rek euh, képp kuy ñëw daal na méngoo ak euh, ragal yàlla wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa na ngeen yóbbalu te yóbbal bi gën mooy ragal yàlla te ci la lépp nekk yàlla nañu yàlla àggale ci bis bi ci jàmm te lépp luñ ci def mu nangul ñu ko te tegal ñu ko ci loxo yi sëriñ bi kon ñi ngi leen di tàggu fii ba beneen yoon ci yeneen i jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.